dee ci marché yaa tàggi sa bopp waaye kii day moom li ko dal dee ci jaba sax ka gën a sedd moom kay dugg na ne ru ki def lu ne weng ba noppi di xew xewaaral di jaay baat bu rëy ëttu yéenekaay yépp xëy ko amee ko tey la xëdu njëkk journal yi enquête témoigné suusu a las les échos le quotidien l'observateur ñoom ñëpp ñu amee seen xëdu njëkku yéenekaay ak njiital sédiment lii di Babacar Ngom enquête nañu ginnaaw janoo bi nga xam ne moom la Babacar doon xam ne weñ wu ci dal dee bay Babacar nee na waa leer ñoom ca dëgg-dëgg dañu maa yab rek waaye suuf si moom man maa ko moom te képp ku ma fa bëgg a jëlee da ma faat jar ci sama kawum néew ba ñu ma ci ba ana waa Barzak waaye Babacar yamu ca nee na samay pexe nag te dëgg-dëgg moo jubul waaye kon 2021 bii ñu dëgg ma ma taxawal ab usine def ci lu toll ci ñaar ba ñett ci ay milliards téemo ñamel ne ko koy feelu naan ko Babacar kay bu yamoon foofu sax mu neex waaye defu ko ndax Babacar nee na ñu ma man mënti waxal nag ci sama digganteeg Macky Sall moom dama koy muñ lu métti métti nag sama xarit la donte yenn saa yi sax daf may mere ngir ni may doxalee l'observateur mel na kuy fel gémmiñam naan ko ci dëgg-dëgg kay Babacar mi waxu fi dara moom kay ñeme gàcc ci dëgg rek moo la jàpp nga mel ne nii dara xewut laas mel na ko koy feelu naan ko moo taxit nag xit nag ñàkk pexe-pexe la ndax baaba Babacar lem na ay dossier am jël ay kaakam ba mu jekk jox jébbal ko waa ne bàyyee naag mbir mi waaye yoon nañ ci def li ci war fu mu yem li doy waar kenn waxu ko te waa source ay ñoom fesal ko ci seen xët wu njëkku boppu bi ñu fekk fa Abdoulaye Jonn Jonn mi chef de village su Ndingler ba noppi di wax ci seen kàddu ma ngay wax la ko métteeg la ko neex lépp fële ca suuf su a yéen a xaruñu ko journal bi Jonn nee na ñii li ñu bëgg dafa yomb ba egg ca lool ndax dañoo bëgg a jël suñu suuf sii di ko caxat-caxatee ba noppi bëgg a tëj suñu gémmi te loolee nag duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg dinañ xeex ba fu mu yem neex ndax suufu Ndingler si moom ñoo ko moom duñu ko bàyyee kenn waaye Jonn yamu ca ndax nee na jëwrin jii di Abdou Karim Fafana tamit ñëw na fi ñëw na fi di làkki daada fi dara lu leer xanaa rek naan ñu bàyyee suuf si Babacar Ngom te lay day moom duñu ko nangu Babacar man ne koy tontu naan ko kon nag yéen da ngeen a xamul rek li xew ndax xaaj ba xaajaat der ba duma toog di ko wax waaye Babacar yamu ca ndax nee na fukki fan ak juróom nekk dinaa joxe lu ci juróom-ñaar ba juróom-ñett ci ay mi jël ko jébbal ko waa gendarmerie ndax ñoo fi toogal waa yoon loolu nag duma ko jël ba pari ko def ci maali for bala ngaa ub gi mi ñu sàmba da ngay xam la muy walis noonee la Birahim Seck def Babacar Ngom yëlee xan wu ñu ko Seck ca dëgg-dëgg Babacar Ngom da nga ñoo yab rek ndax waxu fi dara sax na xanaa rek bëgg a jekkani waat sa toogaay ak defaraat saw tuur ñi mënta defaraat seen tuur te seen der yàqu yaxit ñoo ngi ci xaru njëkk Vox Populi yër leen xaru njëkk journal bi ñu fekk fa waa police ñiy xëy di defub jàngatakub xayma ci weeru juin bii ñu génn waa police nee jàpp nañ lu toll ci ñaari junni juróomi téeméeri ñaar fukk ci ay doomi aadama ci weeru juin bii ñu génn ak lu toll ci juróom benn néew laa tur bi ko koy leen ko fàtte agresseurs yi ñoom dañoo far mel ne rek ku ndax li ñuy xëy di toj boppi askan weeg di leen faat jéggi na dayo laale woon ci faatug Iba Caam ko defati yéen leen xaru njëkku bi nañu moom koy juge bi accéléré na laa kadaas bi niki na leen di càmbar seeni mbir bi tamit yemu ca moom koy dafa aalu rek ndax woowaale na tey itam famille Iba Caam yi nga xam ne dañoo laale waa partie civile bi moom kay na lépp leer rek li kenn mënta leeral te benn xel mënu koo yan mooy lu doy waat di dëgg gu wér péng mu moo nekk ci xët wu njëkk l'observateur yëg leen xët wu njëkk journal bi ñu fekk fa seen ndaw si def lu doy waar ba egg ca lool ndaw si moom dafa am jenn waaju ko daan bëgg waa ji li mu daan am lépp mu daan dajale daan ko ko yónnee waaye ndakate soxna si moom lu mu ko daan jox rek da ko daan takk ba mu egg mu denc ko ci koppar fooram xaalis bi mu dajale nag egg na ci juróom-ñaar fukki million ci sunuy koppar waaye lu doy waar te kenn ko mooy ndaw si moom dafa takk waa ji ba mu egg rek waa ji teg ko fi ne yàq bu naqari bàyyi ko fi dem sëyaleeg beneen xaritam laas mel ne ku koy feelu naan ko loolu sax na doy doyul waal di gën a doy waa doy waar dëgg moo amee fële ca gennaar benn xale bu góor di nappkat moo rey ab xaritam ci 5000 francs dong ba ëllëg ak jàmm lii doy na waar